jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 rajo bi nag nekk fii ci Sodida ci taax mi ñu duppee El Hadj Mamadou Lamine Bara Mbacké mbokk yi seen émission pencum réew mi ñu si ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck euh, du Diawo jàlloo nekk ci wàllu technique bi tey nag mbokk yi ñu dellu am mbégte. daal di euh, dalal euh, Abdoulaye Mamadou gisee euh, jiite parti politique bi nga xamante ni moom moo tudd mouvement culturel pour le salut du Sénégal fulla ak fayda moom la ñu invité tey fa yéene waxtaan ak moom ci ponk yu baree bari waaye ci biir loolu rek xam ngeen ne tey la ñeent fan ci weeru avril 4 avril mu nekk sunu fête de l'indépendance waaye nag gis ngeen ne tey ji kenn féetewu ko danañu si ñëw ba mu gën a bëri Abdoulaye Mamadou gisee réew mi FM ma ngi lay nuyu. waaw Djily euh, Djily Bagdad maa ngi lay euh, maa ngi lay fay di la sant di la ziar euh, di ndokkal Sénégal yëpp aussi si bésu tey bi nga xam ne mooy 4 avril di di bés boo xam ne tey la ñuy féete sunu le Sénégal moom boppam ci wàllu euh, euh, ñun suñ diggante ak yeneen réew yi waaye ñun nag yàgg nañ moom suñu réew nag loolu moom yàgg nañu moom suñu bopp ndax ndax dëkk boo xam ne dëkk Serigne Touba Alaaji Malick maam Limaamul Maxdi dëkk boobu kenn warul wax ne euh, mu ngi soog moom boppam donc mais sur le plan politique ak teritorial nga xam ne tubaab bi dafa ñëwoon noot si Sénégal ñu koy xeex ba tey ñu jël suñu indépendance loolu la ñuy féete donc muy benn victoire donc euh, tey nag may ndokkeel Sénégal yëpp di la ndokkeel yow aussi ndokkeel waa rajo Rewmi FM. Euh, Abdoulaye Mamadou gisee comme ni nga ko waxee tey di 4 avril ñu gis ne euh, jàngoroy coronavirus ji tax na tey du ñu féete ko tey loolu yow lan moo ci sa xalaat. waaw li may njëkk a wax rek mooy jiitu réewu àdduna bi jiitu réewu Sénégal ñoom ñëpp war nañu xoolaat seen bopp. war nañu xam ne ne euh, maanaam bu ñuy wax souveraineté puissance maanaam am doole maanaam buur nekk buur di buur di buum yëpp loolu yëpp yàlla rek la du keneen ndax tey jii ku ñu waxoon ne boo yeewoon Senghor yi euh, Abdou Diouf mais nga woo ko dellu micro ne ko Sénégal benn feebar tax na feetewuñu 4 avril mais euh, loolu xalaat sax xalaatu ko waaye loolu aussi day wane ne faiblesse su état yi maanaam li ñu war a def seen réew maanaam tey jii. su ñu demee ba nga xam ne benn virus bu ndaw rek jóge ñëw na dal ci kaw askan askan ba afale tiit loolu moo lay wane ay at ngi nii ay at ngi nii gouvernement yu bëri toppante nañu ay président toppante nañu waaye li nga xam ne moom la ñu war a def seen askan des na maanaam prévention moom mooy li nga xam ne euh, l' état la prévention état day prévenir donc tey waroon nañu mun a feetee fête de l' indépendance sérieusement parce que xaalis bi am na fi ji li parce que bu dee moyen rek la ñuy wax. xaalis ak yooyu Sénégal gi am na xaalis am na moyen am na lépp mais li li tax tey ñu dem làqatu ji euh, bañ a féete suñu souveraineté nationale loolu da lay wan ne rek ku si nekk tey jii war nga xoolaat sa bopp surtout ñi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite war nañu xam ne ne. Euh, am nay manquement yu bari yoo xam ne mais feebar bi dafa mën naa wàllante te rassemblement bu ñu ko defee aussi feebar bi mën naa gën a law aussi. waa loolu dëgg la xam nga mesure préventive yi nga xam ne euh, organisation mondiale de la santé moo ko moo ko édicté état yi topp ci euh, man am na ci man nangu mais am na yoo xam ne nanguwuma ko man ko man waaw te loolu nañ ci ñëw léegi leneen li mooy euh, feebar bi day wàlle certes day jël ay kii yëpp mais aussi ji li amul yàlla sax ko wax ci alxuraan amul feebar bu amul garab donc te ñun waroon nañ bokk ci réew yi nga xam ne tey mën nañu wax ñun ñoo découvrir liy faj wala vaccin bi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy prévenir lii nga xam ne arme biologique waaw muy muy coronavirus bi lu tax waaw mais parce que tey jii bi ñu amee indépendance ba léegi ñun ñu moom suñu bopp ci côté nasaraan bi ñun war nañ mën am moyen parce que tey am nañu ay institut Pasteur am lu ne war nañu am moyen yoo xam ne ñun suñu scientifique yi dañu leen gën a dooleel jox doole financé science recherche scientifique yi médical beeg yooyu yëpp waroon nañ ci injecté ay milliards mais politique euh, président bu ñëw wala gouvernement bu ñëw day day théoriser rek mais jamais ñu jël moyen yooyu jelloo ko science bi delloo ko éducation bi. d'accord mais mais Abdoulaye Mamadou Guissé est-ce que tey euh, coronavirus bi tey. comme ni nga ko waxee sànq euh, wanewul ay faiblesse yoo xamante ni tey euh, sunu euh, sunu gouvernants yi maanaam ñi nga xamante ni tey ñoom lañ dénk réew mi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénkoon ndax soo xoolee tamit tey Sénégal boo demoon tey mën naa laa jox benn misaal ci sunu secteur privé bi soo demoon fu mel ni Maroc nga dem si yeneen da nga gis ne secteur privé yooyu ay six cent et la ñuy génnee ndax ñooñu seen njiitu leen a mais fii nga xamante ni mooy Sénégal tey secteur privé bi ni nga xamante ni leen état bi wanee ginnaaw dem dem ci yeneen entreprise yoo xamante xamante ne ay entreprises étrangères ak tey par exemple tey boo xoolee tey ci côté hôpitaux yooyu yooyu yëpp euh, est-ce que jàppoo ne coronavirus bi wane na ne euh, ñun euh, ni àdduna war a doxee wala waajal suñu bopp ñun doxewuñ noonu. waaw mais mais loolu jiili da dama si dama la si fekk si si anam yu bëri xam nga tey secteur privé étranger bi lu tax tey ñoom ñu ëpp ñu war a ëpp sax lu ñu joxe mooy tey boo xoolee marché yu mag yëpp ñoom ñoo ko yore. Euh, benn deuxièmement aussi mooy ñun suñu suñu suñu sunu njiit yi euh, jiitaluñu mayuñu doole suñu secteur euh, privé yi parce que loolu aussi dafa nekk parce que tey jii xam nga taux de croissance su Afrique 6 7 pour cent la woon avant coronavirus bi di dugg si mais tey jii mun nañ ko évaluer à trois pour cent maanaam taux de croissance bi wàcc na produit intérieur brut bi aussi kenn waxtu ko donc loolu dalay wan ne aussi secteur bi ñu gën a touché mooy secteur privé bi xam nga lu tax parce que tey jii bés bu corona bi jeexee ci ngeen di xam ne secteur privé bi moom la ñu gën a touché moo tax mesures yi nga xam ne de prévention yi ñuy jël euh, actuellement nii état du Sénégal dafa war a accompagner à 100 pour cent secteur privé bi mais euh, donc loolu mooy wan ne rek lu tax suñu secteur privé participe à 100 pour cent si xeex coronavirus bi mooy parce que avant état bi gëstuwu leen. léegi ban jàngat la ci nguur gi war mais mooy li ma wax euh, jàngat bi mooy euh, euh, ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo seetaan seen secteur privé. mais bu dee da nga jàppale secteur privé marocain bi tey bu dee état bu Sénégal la jàppale pourtant ñooñu bu ñuy dimbale ñoom seen seen réew la ñuy dimbali. mais ñooñu seen réew la ñuy dimbali loolu moo man man nag loolu côté boobu damay man damay wax sax damay ñaawlu loolu parce que tey secteur privé bi nga xam ne moom nga jëloon say marché yëpp jox leen tey ñoom dem nañu ëlbatiku dimbali seen dëkk. bàyyi la bàyyi la. donc loolu lan ban jàngal nga ci war a def mooy euh, ku ku ku iñaane sa ndono sa sa dee ñaaw loolu rek moo dal actuellement euh, euh, dëkk mel ni Sénégal mooy jël lépp jox ko secteur privé étranger bi donc ñun suñu secteur privé wax dëgg yàlla man aw ma lu mu leen di reprocher lu ñu am la ñuy joxe. est-ce que ñun lu jëm ci suñu wàllum production wàllum dundin ñun gis nañ ne tey lépp dañ koy jéggaane est-ce que mm. jàngoro coronavirus yi waruñu see jàngee lépp lu ñu lekkee rek wala lu ñu jëfandikoo ñu ñu amee ko ci réew mi. mais jii lii moo tax xam nga ñun suñu parti. ñun dañoo sukkandiku ci culture ñun dañu ne ci culture nga mën a développer sa réew te culture nag lekk ak naan ci la bokk façon bi ngay lekk ak bi ngay naan ak li ngay li nga xam ne yaa ko moom moomal sa bopp mais aussi même ba ci langue nationale bi ak aussi yenn pratiques yi yoo xam ne culturel la gis nga tey jii coronavirus bi man am na façon yoo xam ne man d'accorduma ci d'accorduma ci nuñ koy xeexee parce que dafa mel ni jii li euh, nit ñëw fekk la nga yore yat sa kër yow yat mooy sa ngànnaay ah am na sàcc bu dugg sa kër mais pistolet ngay jël te yow amoo pistolet nan nan ngay def mais sa yat nga war a jël nga xeexee ko parce que yow yat boobu xeex nga ci am ci ay ndam yu bëri ci façon bu nekk donc man loolu moo tax man d' naa que war nañu daan coronavirus war nañu xeex ak moom war nañu ko fi jëlee war nañu ko empêcher dugg Sénégal mais quand même ak suñu moyen de riposte personnel d' accord d' accord mais gisee tamit euh, xam nga euh, dama la wax ci côté santé ni ñu waroon a waajalee suñu bopp. Mm-hmm. nga ne euh, sunu état yi dañ see wane yaafus. Mm-hmm. état bi ni mu waroon jàppale suñu secteur privé ba nga xamante ni bu ëllëgee euh, taux de chômage bi mën naa bañ yokk ndax secteur privé bi ñoo ëpp lu ñu jël ci ay emploi te bu ñu amee jafe-jafe ñu bari dañ leen di yóbbu chômage technique wala dañ leen di dàq boo xooloon tey ci mbirum hôtellerie mbirum tourisme presque mille emploi yoo xamante ni ñoo ngi technique euh, tey bu dee état bi dooleelul ñooñu beneen bi tamit sànq maa ngi lay wax ci li nga xamante ni tey moom la ñu war di euh, bay loo xamante ni wala loo xam ne ñun ñoo koy bàyyal suñu bopp ñun ñoo ko jëfandikoo suñu bopp beneen bi tamit su côté éducation gis nañ ne jàngoro ji tax na ñu ñu dàq li nga xamante ni mooy tëj école yi mm-hmm. est-ce que tey bu ñu waajaloon suñu bopp ak fi technologie toll mënuñu di joxe cours sax jaarale ko ci ci xarala yees yi xam ne di du am benn fay waaw mais loolu loolu mooy sànq analyse bi mu la wax rek côté que ñun suñu capacité de réaction euh, nekkul si dimension événement kii bii xew nii problème bi parce que lu tax mooy comme tey li nga wax nii Euh, tey boo boo déggee jamonoy Wade dañu doon wax quarante pour cent budget dañ ko def ci éducation kon loolu bu ñu ko defoon ci éducation jamonoy Wade ba tey jii kon mun nañu wax ni euh, coronavirus bu duggee tey tey élève bu nekk mu ngi toog këram yore tablette am connexion internet prof bi di la jàngal te pourtant euh, dëkk yu bëri ah même même Afrique Côte d'Ivoire loolu moo fa nekk te te te tey Alassane Ouattara xanaa gënul warul gën a liggéey Macky Sall ndax Alassane Ouattara 2011 déjà ci guerre la nekkoon dëkkam ci guerre la nekk tey Alassane Ouattara euh, bi muy dem conseil des ministres bu njëkk vidéo conférence la def Macky Sall recevoir au palais ay sëriñ lu nekk di saafonte ak ñoom joxante ñoom loxo te lool rek déjà dafa violé li nga xam ne euh, mesures yi nga xam ne tey moom la ñuy wax askan bi d'accord dana si ñëw euh, Abdoulaye Mamadou Guissé de manière générale daal Sénégal waajalul boppam léegi non waajalul boppam ba pare gis nga ji li li nga wax sànq dafa am solo gestion locale bi tey bu ñu ko doon def xëy na dina dina amortir à dina yóbbu coronavirus ba zéro. moo tax ma ne la tey ba tey ji ñu am nañu jumtukaay yi. même conseil local bi fexe ba di fajoo sa réew ci la bokk. mais fexe di fa xam nga tey jii boo xoolee italiens yi Sénégal yi nekk italien nga gis tubaab bi sax léegi jël gaal di ñëw fii. pour faju ci balaa corona bi di leen rey. léegi euh, lu ñuy wax migration immigration clandestine bi léegi dafa def sens inverse du nga xam ne corona bi am na doole tubaab bi léegi ñoo jël gaal léegi di ñëw sa Afrique pour pour naaj bi pour faju te loolu consommé local boobu jiile même naaj bi ci la bokk gis nga ñun suñu naaj ba léegi bokkul ak fenn euh, naaj bi sax suñu naaj bi sax tey contribuer ne xeex coronavirus bi parce que tey nee nañu virus bi bu weesoo 21 degré du si dundu te Sénégal boo xoolee tey jii booy dem ci mbedd mi nii moo tax même confinement bi ñuy wax nii man ànduma ci jiili parce que tey demal ci mbedd mi léegi euh, garage mécanicien yi mu ngi fees dell marché yi mu ngi fees dell waaye léegi kon yan mesure la état jël mais état amul jëlu fi mesure xam nga lan moo fi am euh, fexe benn moyen ba ba jël benn alal confisque ko téyel ko seen bopp d'accord léegi léegi léegi euh, état d'urgence bi ak couvre-feu bi ak euh, transport bi nga xamante ni nee nañu nañ ko bàyyi diggante région ak région moyen euh, de riposte yooyu kon jàpp nga ne daal du solution. non man moyen de riposte yooyu jiili lu tax mënuma ci ànd mooy d'abord moyen de riposte yooyu adapté wul ak ñun suñu développement dëkk maanaam suñu réew xarañaayam yeggu fa. Mhm. ndax lu tax yeggu fa mooy xëy na ñoom ñoo parewul waaye waroon nañu mën a pare tey bu buñ ne leen benn bisu tata ñëppay toog. loolu sans coronavirus dafa waroon am jiili li car tey boo demee Europe car Sotrac car car Dakar dem dikk yi ñoom la tubaab yi yore mais kenn du ci taxaw ñëpp dañuy toog su feesee nga xaar beneen mais nag chaque cinq minutes car ñëw mais tey jii est-ce que état Sénégal def na loolu mais prévu ko léegi frontières yi ñu tëj mais mais jii li même bu ñu tëjee frontières yi nit ñi dañuy bouger xam nga lu tax jii li munoo ma tëj ci nekk nga ne ma naa toog sama nekk te joxoo ma ma lekk joxoo ma ma naan xam nga Italie lu ñu def 800 euros la ñuy jox nit dañ dañ lay fekk dañ dañ da ngay da ngay ñëw ñu ku yare carte d'identité rek italien ah wala séjour dañ lay yónnee sa 800 800 800 euros pour loo dundee weer boobu doo fay ndox doo fay courant doo fay téléphone. mais couvre-feu bi. mais couvre couvre couvre-feu bi man pour man amul sens ji parce que mënoo confiner nit ñi guddi gi. ah guddi gi ñuy génn parce que boo ko calculer boo ko xayma c'est zéro virgule zéro pour cent la kenn génnul guddi gi xanaa kay lan ngay def mooy agresser les populations mooy mooy li may wax rek euh, temps yi la sama article yi man mënuma concevoir nga nekk biir palais guddeeg bëccëg nit ñi di dugg di génn ah di di yaataa yumbe biir palais yow nga ne Sénégal yi nañu tëju te yow biir palais boobu nga nekk yaa ngi lépp dara manqué wu yaa ngi lekk yaa ngi naan sa gars yi si oto yu luxe la ñuy dugg climatiser bopp bu ñu génnee dugg seen kër yi seen poche fees dell xaalis amuñu problème téléphone amuñu dara bu ñu wootee téléphone ñu indi leen ay ginaar yu ñu saaf defal leen lépp ay pomme orange yow yow nga nit nga tëj la si kër ji li nañu xoolaat moyen de confectionnement bi ndax tey ji fonds de riposte bi nga xam ne mill milliards la bu ñu joxoon sénégalais bu nekk ku am sa carte d'identité bu ñu la joxee 2 millions 40 millions la su dee ñun 20 millions d'habitants lañ te ñun bu egguñu 20 millions d'habitants ji li nañu xoolaat mbir mi gis na mbir mi arnaque a ngi ci mbir mi politique politicienne a ngi ci arnaque ngi ci politique politicienne a ngi ci complot national ngi ci donc un un nationaliste warul nangu sax di toog di négocier ak loolu ak le président de la république c'est-à-dire di ko wax ne na nit ñi tëju ci ay néeg kon tey ñi ñi ñu doon xeexal askan bi yëpp tey dañoo mujjee ànd ak nii noot askan bi parce que man lii noot laa ko tuddee d' accord mais mais gis nañ ne bu ñu tëjee région ak région loolu dina indi gàllankoor bu baree bari ndax gis nañ ne ñu baree bari tey euh, dañu doon dem yóbbu marchandise ci région ak région ndax na région yoo xamante ne amuñu yenn marchandise yi benn bi tamit est ce que tamit amul ci couvre-feu bi nga xamante ni tey comme ni nga ko waxee sànq xam nga dafay mel ni virus bi moom guddi kese lay dox te bëccëg gi nit ñaa ngi ci ci marché yi fees fi dellu ci garage mais ji li moom laa la wax dama ne la sànq wax naa la man bi may ñëw léegi si yoon bi marché yi maa ngi ko romb garage mécanicien yi mu ngi tulleeg mali rajo yi ak télé yëpp maa ngi romb si buntu nit ñaa ngi fa groupoo jaaykatu kafe yaa ngi jaay jaaykatu ndékki yaa ngi jaay ndékki léegi ana armée bi ana police bi mais gis nga contra c'est contradictoire ba pare dafa mel ni ñoom dañu jóg rek pour pour tëj jumaa yeeg église yi ak jàkk yi parce que ñooñu rek la ñu wax nañu respecté confinement bi le matin mais bëccëg bi mais le euh, euh, euh, bëccëg bi ñëpp a ngi dox seen yitte nañu ubbi jumaa yeeg jàkk yi parce que xam nga lu tax ma la loolu tey boo demee Indonésie dëkk yi mag Erdogan Turquie dafa ne moom kenn xalaatul sax tëj jàkk wala jumaa nee na defu ko nee na ndax moom arme boobu rek la yore pour xeex ak lii ñu tuddee arme biologique jii euh, jili gis nga tey ñun suñu maam yi ci ci alxuraan am nañu ay secret yoo xam ne arme biologique peut-être que ñoom tubaab bi duñ ko gëm ci jumaa yi ñu teg non jàkkooru ma ci man ànduma ci man jumaa yi ñu teg ànduma ci bien vrai que ne mos nañu tëj kaaba gi màkka mos nañu tëj mais d'accord yooyu ay contexte la contexte la mais contexte bi si différent bii euh, coronavirus bi tey boo toogee ba bés tey bi ñu naan la ay deux cent personnes ñooy infecté parce que tamit loolu mooy. mais jàpp nga ne daal coronavirus bi eggul foo xamante ni waroon na. panique bii nii waroon na ko jar panique bi jaru ko. man de man de man sama bopp laay wax lii mesure yi mesure tubaab la ñun suñu mesure nañ ko xool ñun nañu xool li nga xam ne moom méngook suñu société moom méngoog suñu culture. parce que tey suñu cosaan ñun may ñu sax ay feebaru saq ak ay soj jàppale si rek mel ni tubaab parce lii feebaru tubaab la. soo xoolee tubaab bi lay rey mag du tubaab bi mais gisoo africain bu mu rey africain bu mu rey xam nga lan la la reyee fekkee xëy na yaa ngi amee jabet yaa ngi amee lii mu ñëw tom wala hypertension wala yooyu te yooyu je pense que ñun ñoo waroon jël ay mesures euh, ñi nga xam ne dañuy souffrir feebar yooyu ñu jéem leen ut ay ay ay solution faj leen mais mais dama ne balaa ngaa yow balaa ngaa jël mesure d'urgence rek rek rek ñu ne la këtt ne jonn un état dafa war a pare nag virus bi fu mu nekk nii bett ñoom bett la mais mais ñu bari tamit euh, ci couvre-feu bi daal li si jaaxal nit ñi daal mooy lan moo tax daal euh, ñu ne nit ñi guddi gi yéen na ngeen fàttu vingt heures ba pare bëccëg yëpp te marché yeeg yëpp lan moo loolu lan moo waral loolu exactement lan moo tax ñu te tey ñu bari sax dañoo wax ne couvre-feu bu doon am couvre-feu bu doon am bu njëkk ci affaire insécurité mooy am terrorisme wala dara ñu def couvre-feu guddi. maanaam couvre-feu guddi ci affaire insécurité la mais su dee affaire wàllum wàllante loolu confinement la ñuy wax waaw exactement confinement la wala état d'urgence mhm. te état d'urgence boo ko déggee mooy li nga wax nii mooy du guddi du bëccëg bi mhm. maanaam heure bi bëccëg bi sax mhm. day mel ni couvre-feu maanaam bu ñu nit ñi dajaloo bu ñu ñi def lii mais donc loolu moo tax ma ma indil la ne la c'est-à-dire ñoom dañuy jël benn moyen pour tiital askan bi xam nga tey bu dee da ngay jël ay mesures yoo xam ne leer na la lii c'est antidémocratique nga bugg ko teg askan pour ak askan bi d'accord ci il faut nga justifier ko léegi justification bi mooy yi ay couvre-feu mais couvre-feu bi amul solo xam nga lu tax moo wax la loolu encore lu gën a garaawati mooy tey ji guddi gi ñoom ñooñee ñëpp ñu si bëri ñu ngi dox ci guddi gi yore seen ay laissez-passer ñu nekk si nguur gi seen doom yi ak seen jabar yi ñu ngi yore seen laissez-passer di circuler noonu neexee ci oto yi mais ñun baadoole ñu ngi tëdd suñu nekk du ñu génn. ba pare amuñu ñu ñu lekk. léegi léegi euh, Abdoulaye Mamadou gisee li nga xamante ni moom mooy euh, force Covid 19 bi xaalis bi nga xamante ni ñoo ngi koy ñoo ngi koy dajale lan moo ci sa xalaat. bon man man man d'abord dama sax contre si si ket bi ket bi ket bii ñuy def di laaj askan bi xaalis pour loolu parce que je pense que état état bi waroon na mun a pare ci loolu benn deuxièmement deuxièmement euh, euh, Covid 19 bi. tey am na benn fonds tuddee bu ñu tuddee ko force de riposte. bu 1000 milliards. mais force boobu. Euh, ñu indi si ay toilette ko rafetal ko maanaam recevoir opposition bi palais. <laughs> mais mais jii lii xam nga lii coup d'état la c'est-à-dire que même opposition bi dañoo contribuer ci coup d'état population bi xam nga lu tax. parce que tey pour rafetal 1000 milliards yooyu. woote valider ko par la présence de l'opposition au palais mais tey jii opposition bi am na ñoo xam ne ànduñu si la preuve demuñu si même bu ñu leen woo woon duñu dem xam nga lu tax parce que d'abord xaalis bu day ni 1000 milliards nga koy préparer pour population bi dafa waroon dem ci population bi direct. mais 1000 milliards fan lay jubee mais fond la ndimbal yeeg yooyu. waaw ndimbal yeeg ak ak peut-être ak aussi. Euh, ak si ci état Sénégal ak loo xam ne si Nations Unies ak yooyu parce que OMS aussi euh, waa banque mondiale yooyu ñëpp dañuy del tey tey France sax dañ ko dimbali. donc organisme international. Ah, dimbali yooyu yëpp. yooyu yëpp la ñuy dajale muy nekk un milliard. mille mais mille milliards yooyu ñun quinze millions d'habitants lañu. fukki mil fukki fukki millions juróom habitants léegi nag man bu la neexee sax def ko vingt millions d'habitants ñun Sénégal. tey bu ñu ko defee vingt millions d' habitants ñu ne ku am carte d' ñu jox la deux millions nga téye ko par weer. nga téye ko fekk trois mois. deux millions kon quarante quarante millions lay doon jiili. quarante million la. Euh, deux milliards par sénégalais sénégalais bu nekk bitim réew sax nga yónnee ko deux millions. xoolal mënul weesu quarante million quarante millions boo ko dindee si mille milliards mais jili loolu dara tey nga jël loolu mille milliards jox ko Mansour fay mu géré ko mais donc dina si boobu ñu doon wax. kon ñëwaat na rek xam nga te léegi kon dafa mel ni ñoom Sonko ñoom Idriss Seck lan moo xew ba ñu changé. mais mais euh, ñi nga xamante ni ñoo dem pale ñoo Macky Sall da leen a woo palais pour ñu ànd ñoom ñëpp xeex li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi ak waxtaan ak ñoom ci loi d'habilitation yi yaakaar naa ne opposition bi seen rôle. même du opposition bi kese euh, société civile bi seen rôle mooy demoon waxtaan ak Macky Sall ngir ñu xool ana nan la ñuy àndee xeex jàngoro ji quand waaw mais ànd xeex jàmmoore bi mais mais boo demee ba léegi nga ne ko nga nga yow nga nga ne nga ne ki fi nekk muy buur muy bumi bu ko léegi jox lañ ko alal bu ko mille milliards mu téye ko presque moitié budget Sénégal la. kenn du ko contrôler kenn du ko contrôler te ba pare loi de euh, loi de réhabilitation bi man man je pense que pléonasme la li tubaab bi wax pléonasme ndax fast track bi bi mu supprimé premier ministre le président de la bi mu supprimé décret bi mu def supprimer premier ministre yóbbu ko assemblée nationale ñu validé ko si premier ministre amatul léegi secrétaire général du gouvernement ministre d'état secrétaire général du gouvernement moo fi am mais loolu kay habilitation mënul weesu loolu ba pare euh, France si troisième république la ñu instauré woon habilitation du président de la république xam nga lu ko waral jii li parce que d'abord jamono yooyu régime parlementaire la mais ñun du ñu régime parlementaire ñun régime exécutif la pouvoir exécutif maanaam président bi mooy dogal kon président amuloo loo koy réhabilité parce que da nga fekk mu am doole ba pare. no da nga fekk mu am doole réhabilitation bi man je dis que mascarade la parce que lu tax muy mascarade mooy lu ñuy fexe def rek ba gën a lewal. xaalis bi nar a dugg ci Covid mooy li mu la wax sànq am na fonds yu jóge ci bitim réew ay banque mondiale fu nekk gars leen di jox leen pour dëkk africain yi di kii ay ay ay genre Bill Gates yi nga xam ne tey dañuy financer état yi aussi ñooñu ñëpp dañuy contribuer ci loolu te dina ëpp 1000 waaw dina ëpp 1000 milliards su neexee yàlla xaalis bi dina ëpp 1000 milliards mais nag man je pense que ni ñu ko bëgg a gérer même sax bu ñu woo woowoon euh, euh, commission benn commission boo xam ne au lieu que président de la république di gérer 1000 1000 1000 milliards yooyu ñu woote commission boo xam ne tey euh, ku société bi yëpp a ci nekk jël commune bu nekk ci Sénégal ah seet ñaata sénégalais ñoo fa inscrire am fa carte d'identité commune boobu nga multiplier ko par 2 millions. jël huissier de justice teg jël chef de quartier jël maire ba teg mais nit ñi ñëw recevoir seen deux millions yore ko trois mois ji li man je pense que solution boobu mooy solution ripost bi gën a gaaw ba pare gars yi masque ak ay ay gants ak yooyu mais ñun jii li loolu lan ñuy njëriñ ñun fii boo ne masque nit boo ko joxee masque balaa ñaari waxtu masque ba tilim na. boo moytul masque bi si boppam tilima koy rey. da nga koy jox lu mën a toog këram bañ a dem fenn. waaw lu da nga koy jox loo xam ne boo ko joxee kii li nga ko wax mu respecté ko jarul ngay jël force de l'ordre ndax gis nga virus bi virus bi tubaab bi lu tax ñu créé ko mooy guerre bu bees si àdduna bi guerre biologique la doon léegi militaires yi soxlatuñ leen mais ñun lu ñu doy ay militaire si mbedd mi militaire xoolal benn dëkk soxlatu ko ci mbedd. léegi lan moo nekkoon riposte bi gën a gaaw. riposte riposte bi gën a gaaw d'abord mooy ñun ay li ci ëpp ay jullit lañu. Mm-hmm. am nañu chrétien am ñoo xam ne am nañ ci yeneen xeetu kii d'abord. sunu mosquée yeeg yooyu ñu libéré leen pour leen bu ñu leen empêché julli seen julli mais nañ leen utal ay mille milliards kay soo ko amee mais mun nga jël euh, yi ngay raxasoo ak yooyu takk si buntu jumaa yi ku ñëw raxasu dugg dugg dugg julli mënoo ko def ah masque yi bu dee am nañ ko nañ ko jënd jox nit ñi mu ñëw takk masque bi ñëw taxaw julli mais loolu ji li loolu amu fa amul benn danger benn deuxièmement mooy ñun am na loo xam ne tey jii mun moo remplacer nivaquine li ñu ne mooy faj coronavirus bi ci ci bitim réew. Mm-hmm. ñun sunu si sunu dund sunu consommation locale lekk yi ñuy lekk ba ci euh, euh, kii laaj bi nga xam ne man découvrir naa ci laaj rek ak lingom doom yi soo ko associé moo gën a gaaw ci ay feebaru soj ak sëqat ak lu mu doon. waxuma la nag secret yi nga xam ne tey jii sunu mara yi sunu sunu nitu nitu nitu nitu diine yeeg nitu jamono yi ñoom xam nañ ko ci ci wàllu traitement. Mm-hmm. mais pourquoi duñu def confiance euh, sunu sunu euh, li nga xam ne sunu maam yi moom la ñu mus a fajoo balaa tubaab bi dugg fi. jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ñu si ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu dal ci Abdoulaye Mamadou gise mu jiite parti politique bi di mouvement culturel pour le salut euh, du Sénégal moom la ñu invité tey ci 4 avril bi léegi euh, Abdoulaye Mamadou Guissé yow da nga yëngatu ci wàllum politique te yow ñu gis ne président Macky Sall moom nga doon jàppale te moom ngay jàppale tamit jamono ji il faut que ñu revenir tuuti. ci euh, li nga xamante ni maanaam moom moo am euh, pale mooy euh, consultation yi président Macky Sall doon def ñu baree bari dañoo jàpp ne crise bi mbirum politique daf cee daal di am léegi beneen bi tamit am na ñoo xamante ni demuñu wuy woon président Macky Sall. Mm-hmm. ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci cadre politique. Mm-hmm. ak ñi nga xamante ni tey. ay opposants lañ lu woon ci Macky Sall ku ci mel ay Idriss Seck ay Ousmane Sonko. ay Mamadou Lamine euh, ñoo ñu gis nañ tamit ñu dem wuy ji. président Macky Sall léegi lan la leen mën a yàqal seen ëllëg ci wàllum politique ak tamit ndax gisoo ne crise bi euh, politique daf cee laloo. waaw mais xam nga ji li man dinaa wax leen gis nga tey jii euh, Macky politiquement mun naa wax ni doomu Ablaye Wade la ndax moom moom lu nee rek lu xew rek dina ci rax politique. kan Macky waaw bien vrai que man moom laa jàppale bu moom deuxième mandat mais man doxalin bi nit nag boo koy jàppale su dee amee doxalin bu mu jël da ngay xam ne bii baaxul crise bi dañ ko politiser benn deuxièmement ñi nga xam ne démb dañoo bañoon dem élection présidentielle jàkkaarloog janoog Macky sàll buggoon taal réew mi d'un seul coup brusquement rek ñu mel ni ay xaru yar mais loolu war na tax sénégalais yi nañu nañu tee na seen nañu teey ci mbiru politiciens yi parce que déjà wane na Sonko lu mu yekkul Macky Sall amul du ma mus a togg ak du ma mus a dugg palais Idriss Seck nee na bu duggee palais 2024 moo ko wax moo ko wax waa tey coronavirus bi xam nga lan la waroon def te loolu moom moo doon réaction bi nga xam ne moom la OMS euh, euh, édicté mooy mesure yi nga xam ne jël nañ ko mooy ku nekk ñoom ay ay kilifa lañu président de la république mënoon a jël téléphone am woo leen laaj leen walla ku nekk yore sa téléphone ah ñu whatsapp. wala ku ne ko. waaw wala ku nekk sa mu envoyé la ne la bind ma sama adresse email. bu la woowee téléphone jox la adresse email am mooy président de la république ne la Ousmane Sonko dama bëgg nga yónnee ma lan nga xalaat Ousmane Sonko woo partem wala échanger au téléphone partem gars yi ku nekk proposé ko mais ñëpp ñëpp toog seen kër mais ku nekk di liggéey ci nouvelle technologie. léegi su paree su bëggee gis Idrissa Seck sax mën na jël sax caméraman ñëw filmer ko ñu wane ko mu def télé vidéo conférence ak Idi. mais est-ce que Idrissa mais bien sûr bien sûr que man de man de man personnellement toog naa ak ay nit yoo xam ne bi ñu gisee Sonko ak Idrissa Seck ak ñooñu ñoom tax lañ doon reetaan te ñoom xooluñ sax gravité virus bi mais ñoom dañuy jàpp virus bi tappale la ñoom dañuy jàpp sax moyen la pour gars yi dajaloo waat moyen la politicien voilà ñu ngi nii ndax askan bi rek lañ fi nekkee léegi peut-être lii xaalis a ngi dugg ci sa adduna bi léegi ñu ngi ciy profitoo toog ak waa ji tamit am lu mu leen jox après. parce que loolu yëpp a ngi ci ah. bul bul foog ne. 1000 euh, millions mais yow sa problème ak Macky Sall. sam man <laughs> xam nga xam nga Gaynde Fatma euh, si Cheikh Mbacké Gaynde Fatma dafa ne Senghor da ko mës a laaj ne ko euh, Gaynde ma loo ma bañee mu ne ko loo bañee Rasulullah Gaynde ma tontu ko ne ko loo yow loo bañee Rasulullah Senghor man ba ñu ma Macky mais dama gis ne Macky doxalin bi muy doxalin askan bi man loolu taxuloon ma falaat ko. man dama bëggoon mu am rupture. dama gis mu voté woon euh, le Sénégal l'action kii euh, euh, le temps de l'action. ba ba bind ci. ma sargal loolu le temps de l'action mu commencé ay réalisation commencé jël ay mesures yu strictes mais ma jékki-jékki mel ni bi mu amee deuxième mandat bi dañoo wecc Macky mais liggéey amatul doxatul. ma jiili jiili man du ma naa fexe fulla ak fayda xam nga fulla ak mooy engagement démocratique maanaam nit boo amee fulla ak fayda kenn du la yàpp te du xaalis du ci xëy na nit ñi mënuñu comprendre en politique que nit nga ànd ak moom nga gis li ngeen waxante woon mais c'est bien boo que nga toog président yónnee la xaalis wala am sa parti nañ jàpp si lii mais loolu su dee loolu la gënal askan bi continue di souffrir kon yow jarul ngay am parti politique mais man am na ñu may àndal sax ba léegi sax xëy na dañuy foog ne man dama peut-être dama nekk si dama nekk à l'aise moo tax soxlu ma topp ci ginnaaw président rek lu mu wax ma ne waaw euh, li gars yi di am yenn saa ñu yónnee leen fi ay deux millions 3 millions nga am ci non man bugguma loolu jii li maa ngi sant yàlla bu wér. d'accord léegi euh, Abdoulaye Mamadou gisee li nga xamante ni mooy jàngoroy coronavirus ji euh, gis nañ ne wane na ci àdduna bi ay. réew yoo xamante ni tey réew yu am doole lañ leen doon tuddee réew mu si mel ni tey euh, ay Chine ay Amérique ay euh, Espagne Italie France mais gis nañ ne coronavirus bi dafa mel ni dafa feeñal ñoom seen i seeni seeni seen i faiblesse. waaw xam nga euh, ji li moo tax ma ne chaque jour nañu delloo mbir mi si yàlla xam nga yàlla dafa déshabillé ñi doon wax les maîtres du monde yàlla leen simb ba ñu set sang leen ndox ba ñu tooy weer leen ci kanamu àdduna bi ne ñii duñu dara. ndax virus virus boo xam ne tuuti waaye na tuuti boo xam ne kenn mësu ko mënu koo gis yéen nga ne da ngeen a rëy rëyaay boo xam ne fu fu bët fu fu foo sànni bët mënoo mënoo mënoo mënoo daj nit ki ndax rëyaay yow virus boobu tey ñëw réduire la à zéro benn masque nga xam ne mille francs lay jar wala téeméer nga yow dëkk nga ne puissance nga tey Chine moo tax keroog bi ma gisee bi problème bi amee rek ma gis Sonko def benn vidéo ne dëkk bu mel ni Sénégal waroon na am centre de virologie mm-hmm. xam nga loolu day wane na rek même ñii nga xam ne dañuy opposé xamuñu lan mooy opposition parce que d'abord centre de virologie bu dee centre de virologie rek ngay wax Chine fa la ëppee États-Unis fa la daj daj dëpp France kenn waxtu ko mais lu tax virus bi jéggi Guinée jéggi Mali ñëw daanu ci Chine parce que Chine mooy première puissance mondiale mook Amérique te xoolal lépp looy jumtuwaay médical lépp loo xalaat yore nañ ko ñoom pour ñoom xalaat nañu dara mun leen bett waa léegi yow booy joxee solution comme centre de virologie kon yow xamoo contexte Sénégal sénégalais yi xamoo yow sa dëkk lan la moo tax ma ne combat bi dañ ko war a adopté ak suñu culture ak suñu moyens yi nga xam ne de riposte ñun bi ñu am mooy lan d'abord nu ñu ubbi jumaa yeeg jàkk yi nit ñu julli na ñu ubbi église yi nit ñu jaamu yàlla na ñu fexe moyens jox nit ñi euh, lu ñuy raxasoo na ñu fexe jox nit ñi xaalis confiné leen ñu toog seen kër ñu toog seen kër. xaalis moo leen mën a confiné mais du takk der yi. mais du takk der yi gis nga takk der yi. xoolal loolu loolu loolu man damay wax ne scandale la sax. yow nit ki nga tëj ko ci kër joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan jox ay takk dar ne ko bu huit heures génne bu mu génn. pour lan léegi ñu dana ci ñëw euh, léegi euh, sànq maa ngi lay wax ci ñi nga xamante ni tey ñooy euh, réew yu mag yooyu noonu gis nañ ne am nañu jafe sax ci seen wàllu wér yaram exactement ci ay infrastructure mais mais ji li mooy paradoxe bi. paradoxe bi yàlla li muy wane puissance am wane faiblesse su ñeneen ni mooy tey jii ñoom ñoo dagaloon ñoo loon ay góor jigéen. ñoo dagaloon noonu góor a góor ak góor di sëy ñoo dagaloon nit di sëy ak animal yàlla bëgg leen a mbëggal moo tax ma ne combat bi c'est pas du combat ay affaire euh, scientifique c'est pas un combat scientifique c'est un combat culturel et religieux combat bi c'est un combat culturel et religieux ba tax na tey jii ñoom masque bi jar mille francs ji li masque seen masque yi dafa jeex yow yow sànq respirateur <laughs> euh, à oxygène yi nga xam ne du dara mm-hmm. ba amu fa mm-hmm. waa léegi ñoom puissance bi ñu doon def yëpp fan lañ ko def ci armement ci nucléaire di dem ba planète Mars jël ay milliards di ko dugal ci pala pla pour dem explorer planète Mars jël ay takk der takk leen ba ñu dëgër moo tax gars yi nee nañu guerre bi guerre biologique la. guerre biologique la mais la réponse et les et les culturelle et religieuse donc moo tax euh, am na benn bindkat bu mag bu doon wax le troisième siècle religieux. Mm-hmm. mooy mooy mooy le vingt et unième bi est xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que tey jii ku ku ku ku ku ku ku nax sa bopp. ba foog ne takk der yi yi ñuy sànni ci mbedd mi guddi gi vingt mm-hmm. walla taxaw ci tele yi di def ay slogan wala di woy. Mm-hmm. mooy tax. coronavirus bi reculer yaa ngi nax sa bopp. nañu dellu ci yàlla. dellu suñu jumaa yi ci église yi. donc buñ ko defee. ak aussi consommer. consommer local. donc ñu consommer ñu consommer local maanaam consommer li nga xam ne ñun ñoo ko moom moomal suñu bopp. Euh, sol li nga xam ne ñun ñoo ko moom moomal suñu bopp jël suñu moyen de riposte comme li nga ko xamee ni mais ci li man je ah, li jeex euh, gisee damay ñëwaat ci benn euh, question tuuti hmm. ma daal di dellu si ndax mooy li nga xamante ni mooy jumaa yeeg jàkk yi nga xamante ni tey gis nañ ne dañ koo tëj te ñun li nga xamante ni ñoom lañ ñun moom lañ xam ñëpp xam ko mooy jumaa ak jàkk hmm. képp ku fay dem da ngay sangu ba set. Mhm. te boo demee amul wax amul joxe loxo. Mhm. kenn ku nekk day dem toog. Mhm. sell yor sa kurus. léegi jàkk yoo jumaa yi comme dañ koo tëj. léegi lan moo tax ñu mën a bàyyi marché yi nga xamante ni tey ku ne fay daje ku ne fay jokkalante. ñu bàyyi ko nit ñi dafa fréquenté. te ñay fréquenté tey bu doon marché Castor bi jege tey ak rajo bi. ña fay nekk tey Euh, xajuñu sax si Masaalikul Jinaan ak Grande Mosquée bu Dakar. te ñoo ngay xëy di joxolante xaalis suba ngoon guddeeg bëccëg. Mm-hmm. te jumaa yi tey joxolante amu fa wax amu fa loolu tamit ndax niruwul incohérence mais incohérence la jiilite te nañ ko wax te dee xam nga dégg naa ñu ne ku wax loolu ñu yóbbu la dig ñu convoqué la dig mais jiili man je suis un homme politique libre indépendant te lii je l'assume tey bu ma woo woon ma toog ma assumé ko jumaa yeeg jàkk yeeg église yi nañ leen ubbi nit ñi jàmm yàlla ndax li nga wax gis nga remarque bi nga wax noonu moom la sénégalais yëpp jël mooy jumaa yi d' abord ñiy dem jumaa yi dañoo set parce que dañuy jàpp ba set diine mosoo gis nitu diine bu tilim amul mais mais jili ñooñu ay nit ñu set lañu ñu sell lañu gis nga jili man lu tax may euh, man lu tax may wax jumaa yeeg jàkk yi dañ ko ubbi man parce que marché yi yi mhm. man tey man man marché zinc bi nga xam ne dëkk naa fa Pikine mais léegi-léegi bi may ñëw jili tout màlle bi am ci marché bi ñoom fàtte nañu sax coronavirus bi ah. et puis ma wax la lenn xam nga loolu xam gis nga même tëddi tëddi vingt bi mhm. nañ dem ba si kanam danga gis euh, population bi jàkkaarlook euh, ak gars yi mhm. parce que dañ leen xamal ne yéen mu leen ñu tëj jox leen ñu lekk jox leen ñu naan mhm. dañuy dox suñu soxla donc il est temps que balaa moo am euh, balaa moo am résistance populaire parce que parce que fa lañ jëm ah bon ah mais bien sûr parce que mënuñu tënku nit ñi te jiile man loolu je le conseil pas au président de la république na jël sénégalais bu nekk mu jox ko ku am carte d'identité ñu xool commune bu nekk ñaata nit ñoo fa nekk yore carte mu jël huissier de justice mu toog évaluer commune ba woogaay ku ñëw ku ñëw teew présence physique ak sa carte d'identité nga émargé ñu jox la li ñu lay jox ak huissier devant huissier de justice ak parti représentant parti politique yëpp toog loolu bu ñu ko defoon xoolal bu waxoon tëdd leen huit fii ba ñeenti weer nit ñi def ko. waa mais nag mënoo tëddloo nit ki te joxoo ko mais des médecins yi tamit euh, vraiment war nañu leeralal askan wi. kana bi moom euh, guddi kese lay génn wala guddeeg bëccëg lay génn ndax li nga xamante ne. xel tamit boo xiifee ndax du la ndax ku xiif du ko du ko yóbbu. ndax ndax gisee euh, am na ñu bari ñoo ngi wax ne même Sénégal tey par exemple tey euh, su demoon ci confinement. Mhm. Sénégal bu demoon ci confinement. Mhm. Euh, te tey ñun ñëpp xam nañ ne tey secteur informel bi mhm. wax dëgg yàlla moom moo ëpp. ñuy bari ñoo ngi wax ne Sénégal bu demoon ci confinement tey dootuñu am problème ak coronavirus mais xiif la ñuy amal problème aussi. mais gis nga te jiile est-ce que xam nga ne li war a li gën a gis nga virus bi virus bi ñuy wax nii bio biologique bi nii tey ñi mu gën a war a gën a attaqué mooy ñi nga xam ne lekkuñu. naanuñu ndax nit feeb boo feeblee sa organisme amul amul amul anti anti anticorps boo jaaxlee sax mais mais boo jaaxlee sax ji li donc euh, man li ma gis mooy euh, tey état d'urgence bi couvre couvre-feu bi man dama bëgg xam ne loolu cinéma la ko sérieusement si du cinéma mascarade la te ba pare euh, opposition bi képp ku sol sa dàll dem d'accord ci loolu ak Macky Sall toog sous silence trahir nga askanu Sénégal. mais voté nañ loi bi aussi Macky Sall instant bi nii euh, maa ngi gis benn journal témoin bind ko fan yii nee na Macky Sall mooy président mooy assemblée nationale mooy première ministre mooy euh, euh, président cour suprême de la magistrature yëpp Macky la. mais xam nga lu tax man may may gis nga Guy Marius Sagna avant avant présidentielle 2019 bi daawoon naa ko ŋàññi si lu bëri mais commencé naa am convergence ak moom xam nga lu tax. parce que ba keroog bi ñu bi ñuy projet de loi bi ñu ko déposé à l' moom dafa bind ci page Facebook am xamal ni lii àndu ci lii tënk askan bi la rey démocratie la noot démocratie parce que li ma la wax sànq remarque rek Macky déjà fast track bi rek moo doon buur di bummi ci fast track bi ndax éliminé na premier ministre poste de premier ministre éliminé ko ko léegi dossier ci yow lay ñëw direct mm-hmm. waaye léegi looy doy réhabilitation xam nga réhabilitation loolu xam nga lan la loolu euh, euh, euh, loolu dictature la dictature économique et financière la non je xam nga côté côté dictature juridique wala si si police ak militaire sax loolu kenn waxtu ko. mais lii moom lii moom mu li ñu def nii xam nga mooy lan la. dictature économique la ak financière mooy am amu réew Sénégal léegi nag da ngeen wax pétrole beeg gaz bi léegi jël ngeen koom-koomu réew mi yëpp ba ci pétrole bi ah. gis nañu doon kaas pétrole bi ak gaz bi. yi waru ko gérer waru ko rakkam waru ko gérer mais léegi Macky moo gérer lépp pétrole bu ko neexoon léegi tànk jox la tànkal la euh, jox la fenn ne la bolog ne la. exploité ko euh, parce que dama bëgg xaalis génn ci. Ah. dama bëgg a faj kii bi euh, coronavirus bi. donc l' opposition bi bi bi nga xam ne ñoo fa teg tànkam d' accord ci lii. Mm-hmm. ils sont complices muy Idrissa Seck muy Sonko muy Malick Gakou muy xalifa Sall ba pare. man damay damay damay loué courage yu président Wade xam nga lu tax. ndax Ablaye Wade moment bi su doon ko nooy bopp la ku munul politique la kon moom muy njëkk sax wuy ji Macky. waaye nag nañu bàyyi xel ci ci ci tekkaaram dam bi donc man dama bëgg ñuy bàyyi xel ci mel noonu lay tey jii Macky Sall bu doon consulter xam nga ñan la waroon njëkk a consulter président Abdou Diouf ak Ablaye Wade wala mu ne woo naa leen téléphone waxtaan nañu lii la ñu wax dàkkoon nañ ci lii mais jékki-jékki mel ni kuy show ay ay ay indi ay mbandkat yi biir palais ah fecckat yeeg rappeurs yi man je suis un de culture mais je te dis que loolu amul sens dans un contexte boo xam ne dañ ne leen jël leen vidéo sel vidéo euh, kii vidéo conférence wala téléphone biir palais rek boo fa duggee virus bi mën nga ko fa sànni xam wala xamoo loolu. waaw waaw gis nañ ne boo xoolee tey euh, démb démb ci vendredi bi ñoo ngi wax ne Guinée Conakry am na douze personnes yoo xamante ne tey amee nañ coronavirus ci biir palais Alpha Condé même Alpha Condé def nañ ko test boo dee xool ay garde rapproché. ak benn chauffeur am na fa. waaw léegi président de la république. nuyu chef religieux bi nga xam ne bëgguma tudd turam. Mm-hmm. nuyu ko saafoonteeg moom ku bi nga xam ne. Euh, euh, te chef religieux boobu ay junni junni nit lay xëy ay junni taalibe la nekk këram te respectewul moyen de confit am amul benn moyen de confinement bi ay taalibe yoo xam ne dañuy dañuy dem yelwaani ñëw jox ko addiya mhm. jox ko euh, jox ko loxo jox ko lépp bitim réew fu ne la ñuy jógee waaw bitim réew fu ne la ñuy jógee léegi yow tey ji kooku ñëw nga recevoir ko bokk si ñi nga njëkk recevoir mu jël saafonte ak yow main à main ñuy dugg ñu ne ko raxasul mu ne du raxasu te sëñ Mourtala ne nañu nañu fexe ba bàyyi àjjuma yooyu passé te teewul sax gars yi dëgg naa ne euh, xam nga gis nga jullit dëgg man je sekk que ne mun Mountakha àndul ci loolu parce que lii moom mënu ci ànd mais tey jii yàlla dogal na un état su waxee dara nit ñëpp d'accord rek dañuy fa ne loolooy dëgg mais mais mais mais mais du du ñëpp wax dëgg la yenn saa yi ci réew dina am ñoo xam ne seen xel na ubbeeku tuuti waaw nañu bàyyi euh, kii nga xam ne. leer na leen bu ñu bàyyi woon mbir mi rek si ñoom mooy religieux yii xalif généraux yii bu ñu bàyyi woon mbir mi seen ñoom ñoom danañ ko faj te mbir mi billaay coow du jib te Sénégal yi bu ñu leen waxee daf leen ni daf leen ñoo ñu def ko xam nga Senghor Senghor foo la rawee woon gaa yi en tant que catholique moom yii bu amoon chef religieux yi lay woo même tubaab bi français yi bi peste amee dañoo woo euh, alaaji Malick ñoom li ma lu wax ak ñoom ñoo ñu wax ak population bi ñu jël ay mesures mais jeex na lan moo changé si diggante bi. jërëjëf euh, a Mamadou Guissé mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi euh, muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h moom la ñu invité tey ci 4 avril bi xam ngeen ne 4 avril bi nag ñu si ndokkale Sénégalais yëpp bi moo nekk suñu juróom-benneelu fukki yoon boo xamante ni nag ñoo ngi koy daal di féete waaye ren ji gis ngeen ne jàngoro yu coronavirus yi daan nay tax féete wuñu ko mais Ablaye Mamadou Guissé ci côté économie économiquement parlant sunu état yi ñoo ngi ñoo ngi xalaat après coronavirus. exactement xam nga moo tax ma ne la. loi d'habilitation bi nii ñu voté. baaxul sax su ñun xam nga lu tax. parce que euh, nañu xalaat bu coronavirus bi parce que ñu ngi jàpp août mois d'août deux mille vingt bi lay jeex. tubaab yi loolu lañ jàpp. te tubaab yi nga xam ne arme biologique bi ñoo ko bàyyi mu répandre si àdduna bi ñoom xam nañu gën a xam ban période lay lay seey carrément ci ci ci jaww ji. parce que mu ngi ci jaww ji suñu mënuloon dara rey nañu ñoom prévoir woon nañu ne Afrique temps moo ci dee mais lu tax africain deewuñu ba léegi loolu moo lay wan ne réalité yi socioculturelle yi dafa compter pour résister face à un danger. léegi côté économie Sénégal. côté économie Sénégal bi économie bi euh, euh, ji li euh, man su ma sañoon man xam naa fi ñu jëm côté économiquement Sénégal dina traverser moment bu difficile parce que lu tax d' abord secteur privé bi sànq wax nañ ko. secteur privé bi nga xam ne tey moo am embauché presque li ci ëpp moo moo ko embauché ci ay chef de famille soo moytul euh, dañuy dañuy dañuy am problème le secteur tertiaire ak aussi mooy multi service yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp aussi mu ngi sooxe xam nga jii li tey xaalis bu doon jóge Italie di ñëw di jàppale ñun sur le plan économique mhm. Europe di jóge Amérique di jóge fu nekk. ay milliards ay milliards milliards yooyu tey jii arrêté na. Mhm. moo tax même même Europe même tey Modou Modou yi bu dee métti na si ñoom day day am jeexital. am jeexital donc te ñooñu tey bu ñu reprendre seen seen activité mhm. balaa ñu nekk à jour day yàgg donc dinañu travail benn dinañu traverser un vide économique boo xam ne sans précédent dans l'histoire du Sénégal. te président Macky Sall na jël ay mesures ay matukaayam. mais fonds war nañ cee bàyyi xel loolu. waaw mais fonds yi coronavirus. mais mais moo tax fonds yi war waru ko dénk sax rakam waru ko dénk gorom xam nga lu tax. Ah. parce que fonds yi soo prévoir ne ëllëg crise dina am. Ah. crise économique. Ah. ndóol dina am. nit ñi liggéey dina manqué chômeur dina gën a bëri. ah société bëri dinañ tëj man maa la ko wax. loolu boo ko prévoir mais loolu xaalis boobu doo ko dugal secteur yooyu. doo jël sénégalais yi ku nekk nga jox ko lu mu dundee feek ñetti weer ñeenti weer. doo jël société yi nga xam ne ñu ngi am embauché ay nit nga bañ ko def politique politicienne kee taxaw teleem rek naan daan coronavirus nga yëkkati ay milliards di ko jox alors que. deful ci dara même soo xoolee euh, tourisme bi. presque ñoo ngi tourisme bi ñoo ngi wax ne euh, lu toll ci presque trente mille emplois yoo xamante ne instant bi ñoo ngi ci chômage technique beneen bi lu ëpp trois cent vingt milliards yoo xam ne état bi dina ko ñàkk ci mbiru tourisme aussi. mais tourisme bi xam nga tourisme bi dafa bokkoon secteur bi nga xam ne tey euh, moom bokkoon na ak ak ak étranger yi. sénégalais diaspora yi li ñuy dugal. bokkoon na li gënoon téye suñu économie. mais yooyu yëpp day taxaw parce que ñi nekk bitim réew moom bu kenn xalaat sax fii ak un an. ñu nekk à jour. loo wax dañ naan la corona bi moo tax liggéeyatuñu defuñu defuñu nii tourisme bi aussi li nga si wax. peut-être chiffres yi nga joxee sax maîtriser wu mu baax chiffres yi mais man je sais que ne euh, pour tubaab bi génn sax ñëw ay Afrique wala yéen dinañ ko dinañ ko arrêté ba ci kanam. non dañ koy arrêté ji parce que tamit euh, menace biologique boobu bu xasee ba am ah Euh, gis nga tey woykat bu mel ni Michael Jackson dafa mel ni moom da ko prévoir woon fu mu doon dem am lay takk. parce que léegi monde bi ni am nañu bëri ñu conscient que ne chaque seconde rek euh, euh, bombe benn kii bio biologique ay virus yi mën nañ ko lancer ci àdduna bi. donc man je dis que économiquement dañoo war a créer benn fonds boo xam ne pour ñu prévenir suba risque de de de de de de de catastrophe économique. parce que catastrophe économique weesuwul société yi kenn liggéeyatul menuisiers yi liggéeyatuñu mécaniciens yi liggéeyatuñu hôpitaux yi tëj nañu bon ba pare fonds boobu ñuy wax noonu kan moo ci war a gën a bénéficier wu du personnel de santé yi soignants mais tey personnel de santé bi sax amuñu ay ay masques tey seen kër wuñ fa dara non ji li ni ñu waxante dëgg gis nga problème bi du problème mu ay dama ànd ak yi wala dama ànd ak Sonko wala dama ànd ak Ablaye moom du gisee déedéet c'est pas ça le problème problème mooy nañu analyse avec lucidité ñeme li ñu fi ñu jëm su dee da ngay dem ba jóg yore parti politique nga ne dangay ngay da ngay da ngay da nga fi nekkal pour réew Sénégal da war a am courage di wax dëgg bu yeboo ñu woola fu ne nga toog même virus bi tamit lu mu garaaw garaaw Euh, gis nañ ne pourtant ay Macron yëpp dañoo am dañoo am stabilité dafa am si ñoom mais ñun Sénégal euh, wala Afrique virus bi demee gu fi noonu sax. Mm. te te pourtant boo dee un mois def na fi un mois te yeneen réew yi dafay def euh, une semaine rek dafa rey lam fay si nit. kenn mm. mënu koo wàññi panique bi tamit lan moo waral loolu. mais panique panique bi mooy li ma la wax rek ji li sànq dama ne la. xam nga am na dëkk yoo xam ne si le plan médiatique Trump wax na ko keroog dinaa la wax fii Sénégal tax mu waral panique bi fii. gis nga États-Unis seen président bi mu njëkkee ñëw wax ak population dafa ne leen liiru dara daf ko démystifier ba temps yi bi dese yi bëree moo taxaw mu expliquer leen mu ne man xamoon naa ne dina may dese mais du sama role man en tant président de la république di créer panique pour réew mi mm-hmm. mais ñun aussi président bu recevoir palais mel nii Euh, guerre mondiale a am. Mhm. di recevoir gars yi fu ne. ministre bi di wax di lox ah tëj leen jàkk yi tëj jumaa mais foo xanaa xamoo senegale foo tëj jàkk tëj jumaa tëj église mais sénégalais paniqué. Mhm. day wax non fii yàlla fii nag yàlla yàlla nekkatu fi. Mhm. te sénégalais yàlla la gëm. donc panique boobu lu ko war a indi lu ko gën a indi mooy complot politique la maanaam l' di du Sénégal dafa politiser l' état du Sénégal dafa politiser coronavirus bi ba pare bañ ko ko politiser. léegi ñun lu tax ñu mën ñu bàyyi ñu leen bàyyi ñoom rek ñu politiser euh, coronavirus bi di ci wax sur le plan politique ba pare ne keneen du ci wax ku ci wax ñu yóbbu la police dictature yooyu mais loolu ñoo lànk man maa bañ man dama ciy wax. d'accord mais mais euh, gisee euh, tey par exemple tey soo xoolee yeneen réew yëpp même coronavirus am na fa mais soo xoolee opposition ba lañ war a dénoncer ñoo ngi koy dénoncer. mais fii gis nañ ne Sénégal tey seen yoon nekkatul ci pétrole bi te boo xoolee sax pétrole bi tey. Mm. Euh, ci àdduna bi baril bi wàññeeku na téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom-ñaar. mais waaw mais même même carburant bi. instant bi bañ ko mais bi dañ ko war a dañoo war a kenn waratul fay location. fu mu nekk ndox courant non mais gisee. Uh-huh. li may lay leeralal mooy. barilu pétrole bi. dafa wàññeeku. ba ñëpp xam ne wàññeeku na. te gasoil te carburant bi Sénégal. Mhm. fii wàññiwuñ gasoil wàññiwuñ essence wàññiwuñ gaz. léegi courant bi waaw wàññiwuñ courant bi léegi. Mhm. léegi est-ce que xam nga ne tey loolu ñaata milliards la si nguur gi mën a gañe ci loo xamante ni maanaam nit nit du ko yëg. moo tax ma ne léegi nañu prévenir après catastrophe bi parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. ndax problème bu amee ñoom xaalis bi ñuy gañee nii maanaam. Euh, non mais état mi ngi gagné milliards. ci mu ngi gagné ay milliards. mais milliards yi fan lañ koy dugal ji lii. loolu laa lay wax gis nga euh, li nga analyse bi nga wax léegi c'est très pertinent xam nga lu tax parce que tey jii courant bi dañ ko war a parce que déjà euh, euh, contexte bi boo confiné nit bu nit ñi nga def état d'urgence mais mu leen lii euh, kii état d'urgence sanitaire la léegi warul nekk fii di dóor nit ñi yooyu amul sens xam nga li am sens mooy wàññil dund bi ba pare euh, euh, gasoil bi essence bi nga nga wàññi ko parce que monde bi yëpp wàññeeku na. wéññi bi États-Unis ñu fa nekk dangay ñëw da ngay taxaw ñëw di sol sa oto essence wala gasoil da ngay sol ba réservoir pele doo fay dara presque dara. mais loolu yëpp ay mesures la ba pare. yaa ngi wax président yeneen dëkk yi euh, jël nañu ay mesures. mais dama ne la ñu wàññi. la ñu wàññi sax denrée alimentaire yëpp nañu ko wàññi. wala lenn mille milliards yooyu. pour nga bañ ko jox nit bu dee ñoom mënuñu ko jox nit ñi nañu ne nañu subventionné ceeb ak diwlin ak lépp. Hmm. nga xam ne tey kilo ceeb bi boo amee fukki dërëm jënd. li Ablaye war doon wax en l'an 2000. Hmm. kilo ceeb fukki dërëm. contexte bii la. Hmm. ku am xam-xam dëgg. war xam ne vision la woon rek. kilo ceeb mën nga ko def fukki dërëm. diwlin bi noonu wàññi ko saaku ceeb nga wàññi ko léegi ça fait que spéculation mënut mënutul am parce que boo jëlee subventionné famille bu nekk nga jox ko jaaree ko ci chef de quartier yi comme li ma la wax sànq ji li jël huissier de jël mairie commune ba mais ji li 1000 milliards foo foo ko dugalee Sénégal dina def cent milliards yoo xam ne doo xam foo koy def waaw donc bu ñu kenn sonal naan bu leen politique euh, euh, contexte bii du contexte politique d damay lancer un appel mm. sénégalais yi nañu xam ne waxtu bi du waxtu fàtte yàlla man maa ko wax man Abdoulaye Mamadou Guissé c'est très important xam nga mesure yi yu OMS jël mesure yàllaa ko gën a fort te gars yi dañuy dañuy dañuy nelawal nit ñi ñu ngi jaar si bopp nit ñi ñun nag ay booy Pikine la ñu lu tax sax ñu ne aide alimentaire bu mu ñëw Pikine xam nañ ko Pikine waaye nelawuñu ñu nelawuñu centimètre waaye nag dañoo xam ne aussi euh, bu ñu gérer euh, alimentaire kii euh, aide alimentaire yi ba pare nañu rendre compte population bi te avant ñu koy gérer aussi nañu def benn budget prévisionnel présenté ko sa askanu Sénégal ni ñu woowee pale gars yëpp di dugg ci pale di woon mais loolu jaru ko nañu ne 1000 milliards yi fii la war a jëm ñu ak budget bi établir ko wax ñun nit ñu ko jox ak fu ñu ko dugal léegi parce que bu boobaa nu ñu toppee pétrole bi ak gaz bi mais man dinaa ko toppee noonu ah. 1000 milliards yooyu. jërëjëf moom euh, Mamadou gisee waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy euh, ñun au niveau de notre parti dinañ def commission boo xam ne pour boo xam ne loolu rek lay topp 1000 milliards yi fu mu jëm. dinañ am commission boo xam ne de contrôle dinañ am dañ teg aussi commission boo xam ne day superviser aussi denrées alimentaires yi ak. ak courant bi ak euh, euh, kii euh, de première nécessité denrée de première nécessité courant bi ak ndox bi yooyu yëpp ñu fexe ba population bi am accès si loolu ndax tey ji bu ñu naxantee jël ay eau de javel di ko jox ay nit di wane wu ñu lay filmer yooyu yëpp amul sens xam nga lu am sens population bi tey lekk ak naan ak di yeewu am dépense bu ñu jox seen njaboot moo leen ëppal doole fop loolu koo ko defal déjà daan nga coronavirus bi. d'accord. jërëjëf maa ngi remercier aussi di di mastaw aussi suñu sénégalais yi nekk bitim réew muy France diaspora bi itali Espagne Portugal fépp États-Unis maa ngi leen di wu parce que ñoom aussi vraiment war nañ leen bàyyi xel fond bi fond bi 1000 milliards bi war na dem ci ñoom parce que ñoom aussi dañoo sonn bi mu méttee ñoom ñoo doon jàpp kon waxtu bi war na 1000 milliards yooyu war na yegg si ñoom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Mamadou Guissé mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi euh, muy am nag samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h moom nag moo jiite parti politique bi di mouvement culturel pour la salut du Sénégal euh, Fulla ak Fayda euh, Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw Diallo nekk ci wàllu technique bi jër ngeen jëf ba samedi bi di ñëw incha allah.